Euh, Baye Jili Père Birahim mbokk yi maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax foo waaye mën a nekk ci réew mi ak bitim réew euh, niñ koy defee saa su ne noonu la ñuy fas yéene waatee tey jii defal leen ko indil leen komba bu mag doxoon ci ñaari ndaanaan Lac de Guiers numéro 2 ak ki nga xamante ni mooy Boy Niang su ko defee Père ñëw décortiquer combat bi ñu ànd ci waxtaan ci Père Birahim maa ngi leen nuyu. waaw jërëjëf a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan maa ngi lay delloo nuyoo Euh, Abdou Khadir di kontaan trop ñu taxaw tey weccante xalaat. Mm-hmm. Eh, ci combat yi passé woon te dafa ñu am ci xalaat. Mm-hmm. war koo wax ah suñu gis-gis nag la ñuy wax. Mm-hmm. xëy na li ñu yaakaar ne xëy na noonu lañ ko gisee noonu lañ ko mën a waxee. ñi ñuy seetaan tamit mën nañoo gis-gis mën nañoo bokk ci gis-gis. mën nañoo bañ a bokk gis-gis. dëgg la waaw kon tey kenn ku nekk sa xalaat. parce que man mën naa wax ne laa gisee. bàyyi jiir ne man man nii laa gisee ñii seetaan tamit ne non man nii laa gisee loolu tamit mooy indi waxtaan su ko defee xam-xam feeñ loolu daal lañ ci jublu waaw tey ñu war a taxu taane na ci combat bi nga indi tey jii. Mm, tey ma indi combat boo xamante ni. Mm. Mm. diggante booy ñan la ak Lac de Guiers numéro 2. ñaari ndaanaan lañ ñaari champion lañ. kii xale la muy yéeg bëgg a jëm ci kaw. Euh, dajeeg Lac de Guiers numéro 2. parce que dugg na géejuwaay. dina am pendant neuf combats wala dix combats yëpp. daf ci am ndam. Euh, mu duggaat ci Lac de Guiers 2 bëggoon yoon bi yomb lool. waaye malheureusement Lac de Guiers 2 ko mujjee freiné muy booy Niang numéro 2 combat noo gisee woon. waaw combat la bu ñu séntu woon lool ci neex lool nag. Mhm. parce que Boy Niang raam na maanaam def na carrière bu rafet. Mhm. wax nga daan ay moroomam ba dugg ci ay magam di commencé daan. mais bi ma laajee la de guerre ñu bëri ñu la ñu wax de guerre accepté ko. Mhm. waroon nañoo bëri bëri bu neex bu see bu xam ne dañ koy fàttaliku ba tey. parce que la de guerre na ko parce que def na ci làmb moom it. tubaarkàlla carrière boo xam ne bii mën naa la wax ne man ba tey gisaguma ko daan jël bu ñuy wax gisaguma ko man. Hmm. man laa wax hmm. gisaguma jël buñ ne defet buñ ne defet la dëgër bi hmm. gisaguma ko waaw kon tey ji su demee ba am ku mel noonu nga xam ne combat bu combat bu jafe la combat bu waroon jafe la mais nag heureusement combat ba mu ñëwee fi mu mujj foogoo ko woon man fooguma ko keneen foogu ko woon la waaw ñun ñëpp kuy seetaan lamb rek foogoo woon ne combat bi dina mujj ci ay avertissement ak ay portée réserve bañ dina jox victoire Hmm. man yaakaaruma ne noonu lay demee yaakaar naa ne xeex dina am hmm. bëri dina am parce que ñoom ñaar yëpp ay ndaanaanu bërikat lañ hmm. booy ñaawane na boppam kenn du ko te la dëgër ku ne xam na ne euh, boo mën a tànn cinq de trois mbër laa wax ci xam ne boole woo ci la te la booy ñaay dikk na ci loolu ñu ne tey mënoo tànn cinq mbër ci làmb ji ci ñi dàq bëri làmb te boole woo ko ci moom it waaw kooku ci boole tey koo ci defu tey da nga ne dañ da ko contre parce que mu ngi prouvé bu baax a baax wax dëgg yàlla. am na solo su ko defee kon per ñu ñëw ci écran bi. waaw nga xool combat bi su ko mm-hmm. defee ñu décortiquer ko ay ca gars yi. Mm-hmm. ay ca père. Boy Niang Lac de Guiers 2. waaw Lac de Guiers moo féete suñu càmmoñ. Uh-huh. Euh, Boy Niang féete suñu ndejoor. waaw euh, na ma la taxawaay bi moom waxoon nañ ko. Mm-hmm. kenn ko de gis nga ni mu taxawee. ñaar tànk yu jàkkaarloo la te ñaar tànk yu jàkkaarloo toujours. ñaar tànk bu fekkee dañoo jàkkaarloo. Ah. Euh, tamit dana am ku jubu moroom ak ku jubawul moroom. Uh-huh. Lac de Guiers nag taxawaayam daana baax mais taxawaayam bii tey jii dégg nga xam nga adversaire mënta nekk fële sa côté bi rek. say tànk jublu nii. Mm-hmm. say tànk jublu nii xool tànk yi ni mu jubloo. gis moom moom Lac de Guiers waaw tànk yi dafa war a bi. dëgg la. c'est que su ko defee dóoram day yomb songam day yomb. Mm-hmm. lu mu parce que ñaari tànkam yi dafa war a jublu ak adversaire bi. dëgg la mais adversaire mënta nekk sa ndeyjoor ba pare say tànk jublu sa càmmoñ. Uh-huh. moo tax kon àll de guerre foo see fii taxawaay bii bu fekkee moom mooy rek na ko na ko xoolaat bu fekkee jaar na ci wax xam na li ma wax li ma wax xam naa ne tànk yi ni mu jubloo nii uh-huh. dafa doon tourner jàkkaarloog adversaire bi loolu moo doon kon taxawaay bi des na foofu uh-huh. tamit ba tey jëlagul position taxawaay bu baax parce que boo xoolee tànk bii taxawul benn bii moo taxaw mm-hmm. booy ñëw waaw waaw mm-hmm. tànk bi lemu nii. Mm-hmm. te teguwul bële moo taxaw. kon taxawee benn tànk wóorul ci bëre. da ngay fexe ba taxawee ñaari tànk. sa sa doole en équilibre foog sa ñaar tànk taxaw nga fléchir toog ci tànk yi. loolu mooy tax say tànk taxaw ñu dem. ñu dem ci combat bi. ñuy léewtoo waaw. Mm-hmm. ñu ngi léewtoo ñu fii kenn ku nekk da nga observé pour déglu sa morom. Mm-hmm. waaw ñu ngi déglu de arrière na. abdoulaye ah, arrière xam nga lii nga doon wax keroog. waaw avertissement lii nag laa doon wax. voilà xam nga lii. Uh-huh. soo ko defee benn yoon maanaam mën nga ko def benn yoon. dégg nga. ñu mm-hmm. ta ba pare ciblé. xam nga sëriñ bi dina la jox benn galaaj ne la bu ñu siblee pare arrêté dem sang ko ñëw daal mais soo ko defee benn yoon mën nañ leen mën nañ la ko toléré mais soo ko defee ñaari yoon nag war nañ laa commencé avertir waaw benn yoon bi mën nga ne galaaj la parce que sëriñ bi tàllal la ko ne boo siblee arrêté buñ loolu ñun yëpp jaar nañ ci hmm. ar bi salaamaaleykum nga léewtoo ñu ne la daggal léewtoo bi ñëw mm-hmm. tekki fas googu am na fas gooy takk mm-hmm. boo xam ne dañ la ko jox takkal soo takkee bu ñu léewtoo nga tekk ko ñëw jox ko cumukaay am fu ñu koy def mm-hmm. am fu ñu koy suul yooyu sëriñ si di ñëw jibar yi dañ ñu koy sant waaw jibar yi sax laa tuddee dañ ñu koy sant beneen bi dina am yoo xam ne yi dañ naa la dégg nga saafara bi da nga ne at ba ñu sible nga ñëw arreté yow sangoo ko doo door ñëw continuer bëre bi waaw loolu tamit dañ ñu koy sant mais loolu nag su bëggee dëkk nag ay tappale la bu bëggee dëkk ay tappal def nañ ko benn yoon mën nañ laa bàyyi mais bu ñaaree avertissement lay doon. dëgg la. ay ca ñu dem. waaw. def na loolu parce que dinaa wax leen dinaa la wax leen ci biir bëri tamit. Abdou Khadir ak yéen ñi may gis nga bëri ñaar bu ñu ko mënee bëgg ko. waaw kenn ku ne yàkkamte sa morom. combat bi du yàgg du yàq. combat bu gaaw lay doon. Uh-huh. bëri bu neex lay doon combat bu neex lay doon. Uh-huh. seetal ko euh, combat yu mag yi fi am yëpp nga xam ne ay bërikat lañu ay ndaalaanikat la bu bëri bi gala yi jeexee rek bëri bi jeex. Mm-hmm. waaw. te loolu du ci lim di tudd kenn ñaar kii la faral wala daal mais gis nga hmm. gis nga. mu noonu. Hmm. et puis leneen tamit gis naa ko ci biir bëre bi. Hmm. la dëggee dafa sedd cër trop booy bi. parce que dafa sedd booy ñaar cër jox na ko cër boo xam ne bi ci biir bëre bi. war na ko mën a jox cër xam na ne booy baa booy montante la. te mbër buy ndaw muy yéeg day bari wërsëg. mbër ndaw suy fël su day bari day waxuma woon a bëri ki waaye ànd ak sens. waaw day ànd ak wërsëg mais bi mu ñëwee moom itam dafa sédd cër booy bi parce que lii mu bëreeg moom nii dégg nga normalement waru ko woon a bëri ak mu booy ñaan yi hmm. waaw mais sedd na defet sédd na defet sedd na defet ba cër bi mu ko jox nii mu andi lii def ci bëri bi. ay ca ñu dem ci combat bi ñu leewaatoo ñoom ñaar. benn gis nga leewtoo bi tam fii naa la fi leen taxawal. Hmm. xam nga la dëgër dafay bëri bëri boo xam ne gis nga li muy leewtoo nii. Hmm. seen wàll gauche bi pied gauche lay mais arrêt de gauche am da koy téye lu bari quoi. moom lak waaw la dëgg arde gauche bi même léewtoo bi nii hmm. de fléchir bi tànk yi ni mu jublu nii baaxul hmm. tànk yi dafa war a jublu nii ak waa ji ba pare encore taxaw bi dagg taxawaay bi gos bi dafa war a gaaw hmm. garde garde droite bi nekk ci suuf ba pare loxoom garde gauche bi dafa war a gaaw comme melax comme fit dafa war a gaaw mais da koy téye di mu koy réserve dafa bari ñu dem ay ca ñu dem xam nga fii booy ñaar téye na loxo bi mais booy ñaar bi mu téye loxo bi rek droite am bële naa ñëw Mm-hmm. waaw gis nga ko waaw gis nga loxo bi war na dem moom it parce que am na droite bi moom it mm-hmm. kële gauche bi la mais kii gis nga Boy Niang am na droite bi gis nga waaw Boy Niang gis nga ko mu ngi téye loxo bi mais Boy Niang dafa war a xeex bi mm-hmm. bi mu xoolee gëdd gëdd gis nga voilà Boy Niang daw na Boy Niang daw daw na jëli ko da koy téye gis nga téyante bi nii mais song bi mënoon na song bi mënoon naa gën a baax lii song Boy Niang bi waaw song bi xam nga lan la dafa yooru jàppi ko rek dafa yooru jàppi ko mais bu fekkoon ne dafa tenté woon xeexam bi téye rek droite am bi mu appuyer droite bi. Mhm. droite bi ni mu ko doon appuyer bu fekkoon dafa continuer woon di jam droite bi jam droite bi yàgg yàgg dina am buntu bu baax bunt boo xam ne gis nga buy song si. Mhm. bunt bu baax la song bu baax lay am mais song bi da ko jam jabaar ko rek ñëw. fu jéem a jàppante bi rek. ay ayca ñu dem ñu dem. gis nga ba tey ñoom ñaan ñu ngi jàppante. waaw ñu ngi jàppante gis nga mu ngi jéem a gis nga booy ñaar a loxo pour am ngembali mais ba tey amu ko ci téere bi. Mhm. waaw. xam nga téye bi téye bi moom moom. garaawul gis nga mais dafa kii Lac de Guiers téye lii Lac de Guiers bii dugg na. waaw ah. gis nga loxo bi fi mu duggee nii. Ah. su ma doon Boy Niang damay bàyyi fii dugal sama loxo ci fii. koy dugal ci loxo Boy Niang bi boo ko sa kii bi. mooy Lac de mooy li nga li ngay tere mbëri chaque fois sa loxo dafa war dugg dafa dugg ci biir moo tax Boy Niang loxo bii mu génnee nii. Hmm. su ma du ma téye fii damay dindi loxo bi fi mu dugga loxo dafa koy roof ci biir. jéem ko téye ci biir loxom bi génn. dëgg la loolu mooy tax mu am bunt. Mm-hmm. bunt euh, pour percer ko. Mm-hmm. loolu tax mu am bunt. mais su amul lool feeg feeg loxo booy ñëw euh, kii bi nu tuddee. la dëgg mu ci biir nii. Mm-hmm. du bëtt fii mu du dem. dëgg la est-ce que nangu li ma la. nangu naa ko loxo bi ko téye ba tax du dem mukk ci àdd ba suba. mais da koy dindi nu mu koy dindee day roof day dindi loxo roof ko ci biir. jiital tànk bi mu mën nag daal koy bëtt. ñu eh, dem. ay ca ñu dem bëri bu rëy la waroon bëri fii ah gis nga gis nga li mu def nii tamit xam nga ni danger la danger la danger la xool loxo bi mu aj nii ah. fii tam Lac de Guiers bi mu téye nii xoolal fi mu téye Lac de Guiers Lac de Guiers xoolal boppam bii mu aj ci kaw moo dul yoon daa waroon dugal bopp bi ci biir ah jaajëf wallaay loolu tax may fii yaa war a taxaw nag yéen non père dinaa taxaw dinaa ñëw fii dafa war dugal boppam ci biir su hmm. taxawalee dugalee boppam ba ci biir a pare hmm. jiital rek tànk bi mu ma mëne waaw moom la waaw da ngay bëtte tànk bi nga xam ne moom nga mën a bëree parce que bu ñu la tëroo di mën a rëcc ah. bu ñu ko jàppee di ci mën a fexe bu rëcc mais bu fekkee da ngaa bëtte tànk boo xam ne mënoo koo bëree hmm. ah lu lu ñuy def da ngay daanu moo tax booy bëtt moo tax ci gis nga bi kay ñee loxo ba rek gis nga kii ah. ak téye bu njëkk bi mu téye da doon bëtt rek ah. fléchir rek fléchir jaar ci bokk bëtt léegi moo doon yoon ay ca gis nga. loolu nee naa la Lac de Guiers combat bi daf ci méfie wu. lu bëree bëri mais père boo xoolee fii jàppante bi. Hmm. jàppante Lac de moo gën a baax sax bu booy. moo gën a baax booy ña. Hmm. moo gën a baax booy ña mais da koo jàpp dara. ndax booy ñaa loxo bi nekk ci biti père fii busulu xajoon na fi de. waaw mais xam nga lu ko waral nag. Hmm. dafa jéemul dara. dafa jéemul dara. na mais jéemul dara gis nga. li ñu àttee indiwaat leen indiwaat leen ci gis nga. voilà gis nga gis nga gis nga li may wax nii xoolal gis bi moo baaxul méb hmm. bi def gis nga voilà xool la gauche bi ni mu neexee. waaw gis nga bu neex la mais da ko li mu koy téye moo bari. gauche bi waru woon taxaw mais gauche su ko voilà gis gis nga gauche bi ni mu gaawee. Hmm. ak taf taf maanaam di ko doublé ak di riñaan ma ne waxuma ni di ko daan waaye bala ko ma gis ko. dëgg xëy na dina am sensu seetaan Wassare seetaan li may décortiquer. Hmm. ak ñi koy ñu xool li may wax gauche bi gis nga moo moo taxaw rek di employé gauche bi. gauche bu gaaw bi rek. taf taf taf taf gauche bi bu dee bëgg a ñëw mu lal loxo bi daw bëtt. Hmm. maanaam gauche bi warul daal te mu dee bëtt waaye fii nii de bu jàppante bi rek lay jox te bi. day ah. méf yow def benn effort. Uh-huh. fii nii jii jàppante bi du ci jëm dara gis nga du ci jéem dara. fii nag daa mel na ni eh, xeex na ñoom ñaar ardo am na ci yoon. waaw ardo am na parce que ardo léegi xam nga foofu tam dinaa di ci wax leen. gis nga ah. bu jëkk mbër ak ngar la. Hmm. mbër jom la. mbër jomo ko daan def nit ku am joma ko daan def mbir ak ngoro ko daan def mais léegi dafa dem ba nga xam ne bii su su sa picc nekkee fi boo ko wokkee bu tojee sax ñu ne arrêté leen ah nàkki na ah. wala nangam mais bokk yi da ngay gis ku daanu ba dara ji ñu jël morceau di ko fom te teewul mu continuer football da ngay gis ku gaañu hmm. ñu la baa na tax nga hmm. mais ñun ku gaañu ku wokku sax ñu arrêté loolu tamit jaarul da ngeen di xool nit ki rek dafa bàyyi ngarmeem dem daf ci war a feeñ ak ngorom daf a feeñ ci bëri bi mais nag père bu ne ah. ñu ko atte la xam nga am feebar wàllu ko sa adversaire parce que deret boobu bu ko laalee mun wàll lu tax mu yem ci ñu ne te ci tubaab yi xay na tubaab bi dañoo ëpp jumtuwaay rek pourtant tubaab tubaab bi ñooñu gëpp ñëpp ñoo ñëpp ñoo ñëpp médical yi hmm. ñoo ñëpp couverture médicale yi hmm. ñooñu ñooñu gën a sàmm sportif ñooñu gën a sàmm waaw hmm. ah, yow xam nga tubaab yi kay yemale tubaab bi dama ne yemale ñoo dara ci ci ci faju waaye gis nga boxe bi da ngay gis ku dóor mu ne del mu daal ñu jot dara jël ñu fom ba mu set dégg ko nga continuer xanaa yow doo si daan boxe kii boxe ana ah, eh, ana kii ko nu ñu tuddee MMA MMA doo ko seetaan daaneel nit ba ci wala doo seetaan xanaa Tyson ak ak ak ak boxe bi wala nga seetaan ay kasi kile ay boxe yeen boxe yi ah, waaw yow tam ay ta ñu defaat ci combat ñu dem hmm. gis nga wala gis nga même gauche bi ni ma ko jamee nii buy lancé dafa couvrir wul dafay war a couvrir euh, remise waa ji gis nga voilà ah, day dóor ba pare daw si xam nga mën ngaa dóor ba pare xaar waa ji fayu nga remise bëtt ko parce que bëri song la wax bëri dóor ah. la ñu wax comme bëri dóor la ñu wax waa ji ci ni muy dóore ci nga koy bëttee ci nga koy songe hmm. ci ni nga koy jamee muy fay noonu ci nga koy songe loolu am njàng la de li ma leen ah. nii ah. am njàng mu wóor la quoi hmm. ci ni nga koy dóore ci fayu bi ci nga koy bëttee koy bëttee waaw mais xoolal day jaw day dóor ba pare génnaat du ko fa gis nga xoolal da gis nga voilà daw na jëli te neexul song la dëgg de waaw pour jëli ko ah ak si ko bëtt ko loolu su la jëfale ci bërëm àggo ba ëgg si ko fi nga ko war a àgg nii. Uh-huh. àgg na maanaam intergo ba ëgg si biiram lu jafe ci mbër la gis nga ko. mais moment bi nag père li ñu seet lu mooy Boy Niang moment bi hmm. da doon accélérer combat bi. waaw accélérer combat bi mooy la de Guiers daa mujj di défendre mais Boy Niang dafa paroon pour pour pour pour aspirer Lac de Guiers pour jeexal combat bi automatiquement. est que moment bi loolu la Boy Niang waroon def. waaw mais Boy Niang xam nga ni ki bu fekkee ne yaa ngi ko aspirer pour mu jeex day day fekk nga pour condition mais boo ko pour condition boo ko bëggee jeexal yaa jëkk a jeex. Mm-hmm. nangu loolu. nangu naa ko. waaw boo nit ko pour condition. Mm-hmm. nga bëgg koo jeexal yow yaa jëkk a jeex di. Mm-hmm. moo tax yow booy wut condition day fekk ne yow booy bëgg a jeexal ki day fekk nga am condition woo koŋ. boo xam ne nga xam ne kii du ko bàyyi mu taw du ko may fu mu yàq naa kam waaw mais gis nga fii ba tey xoolal boo ñaaw téye nag kii ne. mais loxoom ba ci biir ne le moo tax ba léegi ëgg du ba gën agsi mais du agsi ah. ba suba du agsi mais per fii est-ce que Boy Niang li mu li mu jox la dëgg bariwul wet gi. waaw ah, voilà wet gi nii. ta delloo ñëwal ñëw moon la wet gi ñëwal. teel voilà ne del ci wet gi. waaw bàyyi xam mu dem ñawal. waaw foofu la. voilà. fii des na de des na de. te teel ni teel. teel ñëwal demal demal de. waaw ñëwal. delluwaatal tuuti rek. delluwaatal tuuti. mu ngi noonu. déedéet ñëwul de. waaw bàyyi bàyyi mu dem rek. ñëwal. voilà voilà demal eh, ñëwal teel voilà mu ko teel fii voilà teel fii voilà hmm. li mu jox wet gi nii hmm. dégg nga ma la hmm. xam nga ki euh, la de pour pour mu mën a pour mën a euh, pour pour mu mën a jar ci jar ci combat bi xoolal xam nga loxoom loxo booy ñaa dafa ne ci biir waaw booy ñaa xam nga kii an la xam nga la de guerre loxo mu ci kaw ci biir la de guerre loxo moo ne ci kaw déggoo ma la de loxo moo ne nii ci kaw booy ñaa loxo mu ngi ci biir Mm-hmm. gis nga fi mu ne nii. Mm-hmm. rotation rek la jaar ci flanc bi rek mën. moom la dëgër. waaw ah, déedéet moom booy ñaa booy ñaa booy ñaa comme mm-hmm. loxo bu la la dëgër jóg na ci kaw nii. bëtt flanc bi rek jaar ci wet gi la mën. fi ne tey bu flexionné woon rek day jaar ci wet gi nii. daal koy door rek ceinturé ko. amoon na loolu foofu. amoon na fi bu garaaw fii. waaw fii te day flexionné rek loos bi lay door ci ci ci ci pokkataan waa ji rek jaar ci wet gi dem loolu la waroon def. parce foofu tamit. kii am na fi mboot. la dëgër waaw am na fi mboot. Mm-hmm. bu fekkee mboot kat la la mboot nag du ñëpp ko mëne. déedéet waaw bu fekkoon ni mu def nii loxo bi ne ci kaw nii. bu korosé ba waa jaare ci mbor gi rek tànk bi bu doon wet bi neex na waaw bu dee wet gi neex na mbootkat la mm-hmm. am na fi loolu mm-hmm. mais nag mbootu ñëpp ko mën xaw ma nag mbootkat la war du mboot baalo am na loolu mën ne ko parce que mosuma gis ko mu daan ci mboot ay ca ñu fii waaw gis nga ko gis nga ngoob bi mu ngi Lac de Guiers gis bi mu koy ngoobu du dox. Hmm. xam nga lu hmm. loxo bi dellu dellu ma tuuti dellu tuuti. dellu ma tuuti. voilà demal. demal kàggu. voilà demal. gis bi voilà gis nga ngoob bi voilà xam gis bi ma lay wax nii. waaw bi ma wax nii. waaw xam nga boo Lac de Guiers lu tax du jekk. loxo boo xam ne ci pokkataan bi. loxo booy ñaa bi. loxo booy ñaa bi ne fii. Hmm. loolu dal na ko contre Modou Lo. bi mu jaaree ci wetu Modou Lo bi di ko ngoobu nii. fekk loxo bi da koo sal may wax bekaay ma ne ko fii da ko mboot ma ne ko du ko mboot parce loxo bi xam nga nu mu mel. Hmm. nga sol sa sa ferme solaale ci bu ndaw. daf may daf may jàpp sama tànk yi. ah déet foo ko dindiwul doo am jàmm. waaw sa xol bi lay laal. waaw maa la ko wax. da ma ne mu dàll nga sol ci dàll. Hmm. mooy lii. Hmm. mooy lii parce que lii lo loxo bii fi nekk bi fekk dindiwu ko du ko mën a ŋoobu. so da ko hmm. takk bi mu ko takk pour man ko tegal siège wala mu teg ko noonu de kul ngulbati ko dóor suuf wala mu suk sukkal bi ko mooy tegal siège rek dégg su fekk xamul ko doon hmm. fekk loxoom bii deñ loxo bi bu la déggee dafa doon fexe loxo bii deñ hmm. nangoo wan nangu naa ko voilà parce que fii waaw gis nga ñu teel foofu voilà ah, teel teer fii waaw loxo la dëgg la dëgg def na trois appuis benn loxo bi mu ngi ci ngemb. benn loxo baa ngi ci ngemb la bii itam. ñaari oom yi dem na kii dem na. waaw kii tam ñaari oom yi dem na. ak mais ange bi laa laa laa xamul ba xam booy ñaar bi daal laal suuf. wala laal suuf mais kàggu danga may dellu tuuti rek. ci action bi dellu tuuti rek dellu ginnaaw tuut. père mën a gis combat voilà. waaw père a gis fu commencé. waaw père gis nga. waaw xoolal dëpp bi. waaw mbokk yi yéen a ko gisandoo noonu. waaw gis nga. Hmm. si na ko waaw ans bi dafa cof teguwaat waaw kii sukk na dem mais gis nga fii waaw woo ñu bëri waat rek moo doon yoon ay ca ñu dem kon ba xam xool arbitre bi ba xam ñu dem continuer ñu ngi ah, continuer ah, arbitre woote na mais arbitre bi wootee fii am de de tax mu atte waaw dafa atte ah, mais dafa mel ni dafa am lu mu gis est-ce que foofu voilà xam nga moo tax arbitrage yi dañ koy jox ñu ko mën action da ngay bàyyi mu continuer ba jeex léegi eh, arbitre li mu woonoon bi action bi demee foofu te jël bi leeragul. Hmm. dafa waroon a waxtaan ak ñoom continuer leeragul de leeragul na continuer na leer leen leer. mais est-ce que mu bi mujjiwul foofu dafa mel ne arbitre bi da leen a mujjiwul waaw mais loolu xam nga yow comme nekkuloo ci wetam dégguloo ko ah. a doo ci mën a wax loolu. ay ca ñu dem ñu xool arbitre bi. dégg nga li ma la bi mu leen woowaatee arbitre bi def bu waat bi du yoon parce que foofu da waroon a bàyyi action bi continuer ba mu leer nañ. warul wala boog mu comme mu tegee loxo àtte woo leen ñëw ci géew bi ñu bëriwaat. Ah. parce que combat capital la boo xam ne bi normalement warul am litige. Hmm, hmm. ku fay jógee lu leer nañ dem seeti wasaare wala nañ dem seeti beneen fële wala nañ seeti keneen du yoon. Hmm. li ñu waroon def ku ci nekk yóbbaale victoire bu leen nañ. loolu moo doon yoon waaye bi mu defee nii daf leen a leen a war a woo pour ñu bëriwaat. waaw parce que bi mu taal bi mu ne joxo benn verdict. Uh-huh. bi mu leen di defee lu bëriwaat pour ñu bëriwaat. la gisoon ba tax mu ah loolu daa mel ni gisoon na sidd ah de li tax mu àtte kay soit dane àtte naa leen parce que ñu ngi woon ci suuf ah. wala moom mu d'accord ne man siid laa gis ñaari juge ne ko noo amul siid amul ah. mu fekk si leen man loolu laa yaakaar hmm. waaye fii man li man mu loolu man maa yar ciblé li may def woo ñu bëriwaat rek nii mu def rek laay def woo leen ñu bëriwaat rek laay def parce que foofu jël bu ñu fi mën a jox à ger de guerre gisuma ko hmm. waaye jël bu ñu fa defet bu ñu fa gisee booy gisuma ko Mm-hmm. waaw nii de wax te yàlla tax man yàlla rek a tax may wax dëgg la waaw man gisuma fi loolu gisuma fi kenn koo xam ne kii booy ñaar defet boo xam ne bi dañ ne daan ko fi gisuma ko te la dëggeer gisuma victoire bu ñu ko jox mm-hmm. ay ca kaagu mm-hmm. ñu ñu demaat di euh, ba tey combat bi nag daa dem ba mujj gi amateur yi vraiment liñ doon waaw waaw waaw gis boo gaaw la am bi mais gauche bi day day dóor ba pare daw daw mais remise bi loxo bii mu la ak ci gannaaw ni du ci dara moo moo koy moo ko jarul daw Ah. gis nga gos bi ni mu jamee gos mu gaaw nii loxo bi mooy tax jarul dëgg da ngay taxaw rek bu ñëwee nga fël. combat bi dafa mel mu dem nga fël da ngay fël rek. Mm-hmm. waaw bu jamee gos gos bi gaaw jarul ngay daw di génnaat parce que waa ji day am sance loo mën a xam mooy père ay jamonoom loxoom neexoon na. laa ilaaha illallaah. muy sànnee nii. dama ne gis nga ni nga taw nii gos bi ni mu gaawee nii. nii bii moo lay bii moo lay boo sànnee nii. Ah. bii moo lay aar. parce que bu ma nee nii boo ma sànnee remise kii koy génne. mais doo jam ba pare génnaat jëm gauche génnaat toujours fii day widd boo ma la songee du ma la fa fekk. boo ma songee du ma fa parce bi day sori. yaa ngi dégg li ma la wax. yoon na ci njariñ. waaw mais da ngay rek. waaw rek taxaw da ngay taxaw non da ngay taxaw. Ah. boo jëmee gos bi da ngay taxaw. Ah, bu ma jëmee gauche nii voilà da ngay taxaw. bul dem non non bul dem bul dem bul dem bu jëmee gauche taxaw. bu fayoo xam nga par exemple xoolal. léegi ma taxaw ma nee naa la gauche jam nii. xam nga dem naa dellu si ma. léegi nag ma koy delloo. xam nga boo ko delloo gis nga paa mu ngi nii damay paar rek. leer na damay paar rek la gis nga. waaw waaw damay paar rek yéeg la. jarul daw boo dawee. Mm. Mm. distance bi dafay sori. distance. day am distance te bu ma sori bu ma songee jàpp. Mm. parce que distance dafa sori. te daal de gën gauche bu baax la am. mais gauche bi day jam ba pare génnaat. génn moo gauche bi gaaw na mais day jam taxaw fa. parce que gardam bi moom moo koy couvrir. su ma jamee dama daan taxaw nii kat taxaw. boo laajee ma génne soo dee ma delloowaat la ko. loolu la ñuy xëyee gauche. bu si nga bëtt ku mu ci buub da ngay daan ba tas su doon bëri loolu ay defetam muy néew. mais père ci biir action boobu booy ñaar teg euh, hanche bi. Mm-hmm. la dëgër de def trois pi. Mm-hmm. Euh, ci comme ci ci ci loolu lañ joxe la la dëgër de bindee di recours. Mm-hmm. dem seen ñu jox ko victoire te yow yaa ngi wax sa biir wax bu doon yow la da nga leen waat ñu bëree. ñu bëree waat moo yoon bar gisuma victoire bu ma mën a jox la dëgër bi. gisuma fa defet bu ma mën a jox booy ñaar. sama diggante yàlla gisuma ko. parce que làmb yi tam gis nga booy arbitre hmm. da ngay jox ko arbitre digganteem ak borom loo xam ne lu lu palpable la hmm. lu nit ñi teg seen bët waaye fii yéen ñi seetaan ak man ak seetaan ñun ñëpp amu ci kenn ku gis jël boo xam ne bii jël bu ñu mën a wax la amul hmm. bari na ci lamb ji nañ waxan dëgg rek dëgg la amu ci man du ma contre nit aw ma ko may faral ma tëram mais du ma wax te yàlla te ma wax tey gëw ma li ma wax dëgg la dama ne fii ñun niñu action yi def nii woo leen ñu bëriwaat bi mu siflee def na erreur da waroon bàyyi action bi continuer ba mu jeex ku mujj daanu jël bu reer bi yaa daanu mais action bi jëm na sifflé na jóg nañu ñoom ñaar na na jarul muy seet contacté kenn na sifflé waat rek ñu continuer bëri. am na solo Père Birahim moo koy jëfal bu baax a ah. baax a baax euh, waxoon na ko ci diggante la de Guiers ak Eumeu hmm. bi Eumeu jàppee tànk bi dëj ko daf na lii du du du sut boo xamante ni hmm. war nañ ko mën a jox Eumeu Sène ndam tey gis nga la de Guiers 2 bëriwaat nag Boy ñaa mu ne ndam li nga xamante ni Lac de am na ko ci kaw Boy Niang bu doon moom mooy arbitre da leen waat ci ñu bëre ah. moo lay wan ni Père Birahim dafay toogee démocratie démocratie la nekkee fii ci Wassare Lamb lépp loo xamante ni Euh, làmb la euh, mhm. noonu leen koy waxtaan ak yéen mbokk yi kon ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax père loolu mooy démocratie ma lay jaajëfal bu baax a baax waaw jërëjëf maa ngi lay sant la gërëm mhm. parce que nit tamit ku dee yàgg sa bàmmeel dëgg la soo ko waxal te yàlla tax rek mhm. li may wax nag am nañu ci ànd ak man am nañu ci ànd ak man waaye ku ci ànd ak ma la dëgg la xam na sa gis-gis nga wax rek man sama gis-gis laa wax la ku mhm. kon man contre moom benn mbër lu bon mhm. du ko sax jéem du ko def kon nag tey waaye nag comme bëri laa jaar mhm. te ni ma gisee ak ni ma gëmee loolu laay nettali nii la ko defoon nii lay demee te itam boo la joxee ciblé artel ci combat capital boo xam ne ay six mois ñu ni ko préparé wala du gàng rek a fa a am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 bàyyi fas njaay nu roowu mag ñoom cuuna a ma juut waa na roy maa ko baaxi ñii ma yor fii